أيس مني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي mbokki taalibe yi mbokk yi ma bokkal sëriñ bi maa ngi nuyu ñëpp di yeesa sunu cent ci sunu borom di yeesa sunu cant ci sëriñ bi ci diggam ak boromam di yeesa sunu cant ci sëriñ bi diggam ak jaam ñëpp danoo amaat tawfeex ju rëy ñu fekkeewaat eh, teertal weeru safar bii nga xam ne mooy sunu weer ñun ñi nga xam ne am nañ tawféqi sunu borom boole noog sëriñ bi ndax bis bi nga xam ne ci la boole cantam yëpp bis boobu ci weer bi la nekk muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci safar kon sama kilifa yu baax yi jiitu di di gën a fàttale gën a fàttaliku bis bi ci xéewal gure yi nga xam ne am nañ ko ci kon bis boobu mooy sunu lépp tey ëllëg ci biir fàttaliku bis boobu nag ak waajal ko fas yéene fas na cee fas gën a yeesal sunu cant dolli ci a dolli sunu kem kàttan loolu moo waral kàddu yii yi bëgg jëmale ci mboole mbokk yëpp yow bokkal sëriñ bi ñu di tudd sëriñ bi mbokki jullit yépp i nga xam ne suñu borom moo boole bokk réew mi waaw te muy kilifay diine yi fàttaliku bis boobu nag te lépp ñu jëme ko ci ak cant dafay mel ne kon war nañ cee gën a yeesal na suñu lépp gën cee yeesal sunu jaayante li tax ñu di ci jiital yeesal sunu jaayante sëriñ bi day lépp ndax lépp diine ngi ci moom muy diinal islaam mu liggéey ci liggéey bu rëy yitte ju jooju nag xam ci liggéey liggéey bu rëy lépp rek mi ngi jóge ci wéetal boroomam kon sëriñ bi fi ñoo gis ba fi ñu ko noppee gis boolewul ak dara boroomam lu dul yërëmt bi ngën ci mbindeef mi nga xam ne moom la ko boroomam joxoñ mu nekkoon ci diggante boobu rek boolewul ak dara ak wéetal boromam di ko jaamu ak bëgg yonent bi jaax ci takk di ko liggéeyal ni mu doon jaamoo boromam noonu la doon liggéeyal yonent bi kon sëñ bi moom nëbbuwul leer na nañ ci lu wér suñu borom rekk fi nekk waaye jaamu na boromam jaamu goo xam ne benn jaam mënu ko weesu liggéey la yonent bi liggéey boo xam ne benn jullit mënu ko weesu loolu moo tax mu liggéey ci lislaam liggéey bu rëy buñ mën a teg bët kooku mooy sëriñ bi ci biir jaamu yàlla am googu ak liggéey googu mënoon yonent bi ci liggéey lislaam liggéey bu rëy bii boo xam ne amul benn liggéey bu ko mën a weesu kon kooku mooy sëriñ bi noo gën a fas yéene jox bis bi sunu lépp ci boobu la jógee la ja dolli ko nag mooy jéem a jox sëñ bi akam sëñ bi neexut a jox akkam waaye nu xam ne noonu mu doon jaamoo boromam doon ko liggéey la yonent bi loolu rek la nu fi bàyyil kon war na noo xam loolu ci suñu bopp bu baax waru noo taal dara lu loolu mënu fa mënu fi bàyyil loolu nag nu nekk ci nam ko nam ko bëgg ci noonu lot nañ ci ndax moom fa mu nekk des koy xam rek fa mu nekk des ko yëg waaye mel na ne jaam lott na ca jéem nekk foofee mu nekkoon waaye nag sañ nañoo koo jéema xam nekkoon ci li mu bëgg itam sañ sañ nañ koo jéem fas yéene doon dëgg dëgg jullit fas yéene doon dëgg dëgg taalibe la jee suñu kem kàttan na suñu borom waxee ci alquran wal asr inna al insana la fi illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bis sabr bu ñu xamee foofii sëriñ bi nekk dëgg lii alxuraan wax na naa dana doy ab soññu ak lot lot lot nu ñàkk ñàkk solo nu jéem sunu kem kattan. barab bii ba mu koy wut borom rek la àndal. réer na diir kenn xamul ci fu mu nekk di wut barab bii rek fu mu gën a may wéete fu mu gën a mën wete wéetale boromam gën ko faa mën a jaamu fu gën a mën a topp gi gën a mën a topp yonent ko fa mën a liggéeyal loolu rek moo tax moo taxoon mu wut barab bii kon lu nu doyoo di doyoo di lu nu ñàkk ñàkk xam lu nu ñàkk ñàkk dégg war na noo xam barab bi nu dem ci bis ba nuy nuy nuy jàng alxuraan eh, boole nañ ko daal defee rek jàng alxuraan xasida eh, maanaam loolu loolu nag kenn ku ne taal bi bu ne eh, bu ko bu ko yabee na jàng ñetti kaamil ba waaw bu ko yewul na jàng la lam lam man jàngal ko boppam bu fekkee ne ku mënut a jàng la na na na wut ñu ko jàng mu jox leen mu jox leen addiya lu lu lu sedd xol waaw noonu la fii bis ba waaw waaw ñaan ci nag jàmmi réew mi. jàmmi réew mi na ñëpp ñaan jàmmi réew mi te it ma des na ci am yaakaar ndax yëngu-yëngu yi bari na ci adduna bi te yàlla nu ci ñu ngi doon kon nag nan gën a ñaan mu gën jéem gën cee musal waaw nan nan ñaan jàmmi ban ñaanee sun bopp ba noppi ñaan ñaan sun borom war la nu gàttandul boppam xiir nu ci boppam xiir nu ci diine xiir nu ci sëriñ Tuubaa xiir nu ci lépp lu baax buñ ko defee ba noppi nag nan ñaan nan naan jàmmi réew mi waaw ñaan jàmmi lislaam nag itam waaw loolu maa ngi sant nag ñëpp sant bokki jullit yi sant bokki taalib sant bokki réew sant kilifay diine sant kilifay adduna maa ngi sant ñëpp. man irrahmanu fi safina أنني خديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذهب عني الله في قرن بصار